teewaayu si tey ci fii ci Diourbel fii ci gouvernance ci waxtaanee mbir lu ñu yore suuf suuf nag li ci njëkk wax mooy ñu ko bokk dañoo bëri wax nañ ko léegi comme ñu ko bokk dañoo bëri dañ ko war a toujours di ko toog di ko waxtaan moo tax ñu daje fi tey ñëpp pour waxtaanee maintenant lan la ni mën a yore suuf ci biir dëkk yi ndax gis nañ fi yu bëri ay jafe-jafe day am lu xam ne suuf moo ko indi moom jarul sax moom foo xool si sa kanam rek da gis ci dëkk yi am na ay jafe-jafe yu am ci diggante nit ñi te suuf moo moo ko indi kon nag bu PROCASEF ñëwee tey fii Diourbel ñëw tànn ci ay communes yu xam ne ñu ngi ci département Bambey ñu ngi ci département euh, bu Diourbel ñu woo ñëpp ñu toog ñu toog ñu pencoo ñu waxtaan xool naka la mën a def ba mën a xam ne daal léegi luñ bokk suñu ñoo ñoo ñoo ko bokk naka lañ ko mën a gérer ba jafe-jafe du am loolu nag moo tax dañuy toog di te yaakaar naa projet bi bu demee bi ci kanam mu ne cinq ans lay am fii euh, cinq ans la war a am jure naa bu demee ba nga xam ne fi ci jaxaar bi gis na xam ne ci kat projet bi lu am solo la ci biir ci biir Sénégal lu am solo suñ dëkk yi ndax dana tax lépp luñ fi def jël ci suuf moo xam lu dëggu la te lu wóor la te loolu moo ci am solo def ay délibération yu wóor délibération xam ne fi koy sukkandikoo dina wóor dina leer ba benn jafe-jafe benn du du ko du ñu la kon nag vraiment moo tax nag di sant Procasef bu ñëw Procasef di sant élus di sant les sous-préfets les préfets di sant ñaar di wane nag xeex bi ñu ñëpp ñoo ko moom mbir mi du mbir Procasef mais mbir ñëpp la

pour ñu xool nañ lañ leen di jàppalee ba ni ñuy yore suuf ñu gën koo améliorer looloo tax nag bu ñu waxee mbiru suuf lu ñuy waxtaane la service technique yi gouverneur convoqué na leen invité na société civile invité na acteurs yëpp ci suba ba léegi présenté nañ leen projet bi waxtaan nañ jël nañ seeni xalaat xalaat yu am solo yoo xam ni dinañu gën a xam ñun fan la ñuy teg sa suñu tànk pour réussir Mbirmi. mi euh, communes yi dinañ leen dooleel bu baax a baax yi nekk fii ci région de Diourbel yi nga xam ne choisir nañ leen dinañ leen tabaxal lu ñuy wax bureau foncier ci wàllu xarale yu bees yi dinañ leen wax indil lu ñuy wax système d'information foncière dinañ leen jàppale ci formation déjà agent foncier bi nga xam ne commune bi recruté na ko fii may wax ak yow nii ñu ngi leen di former fële ci Dakar dinañ former commission domaniale bi maire yi ci seen bopp dinañ leen former administration territoriale également di leen jàppale ci formation bi ba nga xam ni acteurs yëpp ñoom ñooy jógandoo songandoo projet bi du waa Procosef kese dañ koy liggéey ak acteurs yépp parce que loolu mooy objectif état bi état du Sénégal pour un peu mën a jàppale bu baax a baax communes yi ci yorinu suuf si. commune bi. incha allah ñu ngi ko war a def ci téeméeri commune ak fanweer ak juróom-benn bi ñu koy choisir nag ñu leen tànn dañ cee ànd ak association nationale des maires du Sénégal ànd ci ak ministère des collectivités territoriales ak yeneen services techniques yépp bi ñu koy tànn comme que tànn dafa metti nag dañoo wut ay règles dañu nañu fexe ba fukki région ak ñeent yi nga xam ñoo am Sénégal yépp bokk ci fi mu toll nii gox boo dem ci Sénégal am na commune yu bokk ci projet moo xam Casamance la moo xam côté Bundu la muy Tamba ak Kédougou côté Ndar côté maatam biir bassin arachidier bi zone des Niayes foo ci dem am na commune yoo xam ni bokk nañ ci projet bi te incha allah bu ñu yàlla defalee ndam ci liggéey bi ñàkkul ni état dina jël nii kat dina matale commune yëpp ba commune yëpp am infrastructure yi nga xam ni moom lañ bëgg ñu am ko muy bureau foncier yi muy améliorer procédures yi muy am système d'information foncière projet bi en premier lieu cadastre da cee am doole trop parce que aujourd'hui am na lu ñuy wax NICAD muy nouvelle identifiant cadastral loolu il faut waa cadastre ñoom ñoo koy joxe looloo tax sunu représentant projet bi yi nga xam ni ñoom sax ci biir service su la ñuy nekk ci centre des services fiscaux foofu la ñuy nekk di liggéey ak bu baax a baax service technique yëpp moo xam cadastre la moo xam domaine la moo xam aussi yeneen service yeneen service yëpp donc ñëpp ñooy lëkkaloo ànd ci liggéey bi. jeexatalu projet bi résultat yi di xaar bëri na parce que dina tax ba léegi ñu am déli comme ni ko gouverneur waxee ñu am ay délibération sécurisée y délibération bu maire ci goxam kat dañ koy day délibération xam la donc comme projet day objectif ay indicateur ñun nañ lu ménages ak 1 million de personnes bëgg nañ atteindre liggéey bu baax inshallah projet bi également dina tax ba ci zone ndax outil yi ñuy teg day outil yoo xamante ni bii day day tax ba ni ñuy joxe suuf ñu koy joxe ci yoon yu wóora a wóor wóor